alaikum madame Aïssa Sital secrétaire générale adjointe de la fédération sénégalaise de handball Nous voudrais ngi rafetlu accueil bi remercier di commencer par euh, Makhtar Diouf qui nga a depuis le début avant ñuy dem nous nu yore nous ñu aussi accueillis ici. donc euh, ñu au nom de la fédération en tant que chef de délégation euh, représenter la fédération accompagner xalé yi encadrer nous euh, ñu des conditions difficiles trop parce que Mauritanie a di organiser des compétitions comme ça donc conditions yi metti mais xalé yi adapté wu euh, perdre nous une belle match de poule donc si nous match qualificatif en demi-finale si la cadet perd perdre match à un point d'écart 25 24 devant le Cap-Vert donc euh, elles n'ont pas démérité nous avons une condition yi à des kilomètres de la ville peut-être nous avons joué et heureusement pour nous, euh, nous jouons une troisième place, donc, gagné quoi. Nous gagnons troisième place, avons une médaille de bronze. Mais euh, aussi, nous avons benen euh, mbekté moy bi junior yi exploit euh, j'ai match bu tous les sénégalais la communauté sénégalaise de, la, de la Mauritanie était satisfaite de leur équipe vraiment content de nous nañu indi nous ay tama douzième gaynde baa nga fa woon ñu ñu ñu soutenir xale yi xale yi def grand match euh, final devant la Guinée euh, qui est une équipe très physique. Les filles n'ont pas démérité aussi les les les les Guinéennes euh, parce que ñefe nañu mais Sénégal mo leen mën at nos coachs yi nga xamanteni muy Lamine at. Euh, euh, Serigne Fall euh, depuis le début nous avons été une main de fer C'est une équipe di ko coacher sur le terrain comme en dehors du terrain donc nous ñu wone fa fulla encadrer xale yi boole seet nag ñi nga xamante ñi nga muy mam gonde ndoy di eh, di trésorière général adjoint at soxna djumli nga xamni ni médecin équipe bi euh, ñu encadrer xalé yi gungé len banu banu indi fi coupe at médaille de bronze bo coupe bi nak mo ñu intéressé parce que ñom ñoy dem participer ci ci EHF trophy continental bi ñi yaakaar ni buñ fa da daanu représenter dignement le Sénégal comme comme elles l'ont fait en Mauritanie Euh, ñi ñi encourager les coachs yi accompagner euh, les U17 Moi, xale yi nga xam ni troisième place bi donc muy muy Chérif Tal, at euh, ñoom Moussa si nga xam ñoo fi avant voilà, ñuy quitter son ci loolu si euh, préparation bi bi nu demee Mauritanie Ahmed Sidibé rejoindre nu moom maam Ngoné Ndoye jàppale Chérif Tal ñu ñu ñu def li ñu war def yépp gannaaw loolu aussi euh, dañuy féliciter euh, arbitre yi ñu accompagné woon ndax xam ngeen heure bu ñuy déplacé wu dañuy yóbbaale ay arbitre IHF loolu lay def euh, délégation bu nekk day yóbbaale ay arbitre donc sunu arbitre yi muy Assane at Yaxya ils se sont bien débrouillés ba nga xamante ni kenn mënu leen fa vraiment briller nañu euh, def nañ li len war bien arbitré ba ba ba am fa sen euh, diplôme yim fa wara am donc euh, voilà délégation bi ñëw na ci jamm président Seydou Diouf ñëw accueillir nous waa fédération bi ñi nga xamni ni ñoo ngi woon fi ñëpp nek sur place à Dakar sen xel yëpp a ngi woon à Nouakchott dañuy woté minute bu nek chaque heure di di suivre équipe bi euh, minute par minute donc c'est euh, di lu lu lu lu neex xol vraiment di envoyer audio yi di di accompagner équipe bi di remercier ñëpp di féliciter ñi gagné di leen ñaanal ñu indi fi continental ba dem mondial inshallah appel bi may lancer mooy euh, demander à ce que nous accompagner cette équipe accompagner la fédération continuer accompagner la fédération wala yokk seen loxo état bi yokk loxoom.

pour pour pour egsi tey fii donc li ni def rek moy ñu ñaan ñu jappalé len ah pour que euh, continental bi nu jëm ñu mën ci ñu mën indi ndab té pour lolu il faut une bonne préparation rek ñu commencé que les préparation préparation ça demande beaucoup de moyens donc lolu rek lay lancé. Lamine Ndao entraîneur équipe nationale U20 handball jigéen ñi waaw ñuy am contentement bu mag a mag a mag mag mag parce que bi ñuy jógee fii dañ fi doon dem ak ay objectif moo doon lan jël ndam bi parce que ndam bi rek moo amoon importance pour ñun ndax ndam bee lay mun permettre que nga dem challenge continental fédération en rapport avec le ministère mettre nañu dans d'excellentes conditions grâce à des stages cycliques stage de dem ba regroupement interne de 10 jours yu aboutir à la compétition en Mauritanie donc madame tàngat nañ xale yi jaar nañ Ligue liggéey nañ liggéey bi war ba bañ fi jógee waxoon nañ leen dañuy dem pour jëli ndam bi moom lañ objectif te bi ñu fa demee tamit métti woon équipe yi fa dem yëpp dañ bëggoon jël ndam li comme ñun parce que amoon na équipe yu baax yu xarañ foofu équipe bi ñu njëkk a tasanteel mooy équipe bi gën technique ci tournoi bi muy Cap-Vert xawoon nañu sonn tuuti mais engagement ak détermination xale yi ñoo tax bañ génn ci bi ñu ba final tamit ñu taseeg koo xam ni nii du étranger pour ñun muy Guinée ndax en 2016 guiné mo jëron ndam li en final door ñu seen dëkk mu metti ñu lool naqari ñu wante bi pas comme ni ma ko on était décidé jël suñu revanche jël première place moo tax match bi dañ ko préparer dans des conditions yo xamna ni li war lépp pour gagner match bi def nañ ko ci suñ chef de délégation Aïcha suñ docteur docteur Soxna Diom li suñ accompagnante yi Maam mais def nañ ci li war to nañ xalé yi to nañ xalé yi ba nga xamna ni amoon nañ yaakaar ne daal li ñu soxla nañ ko am te bi ñu demee ci match bi tamit wane nañ engagement parce que dafa tombé 4 avril ñuy joué final muy suñ jour indépendance non kooku leneen la mënoon nekk dañ joxewu on a rien lâché on s'est donné à fond comme final kenn ku joué dañ koy gagné dañ dem final bi rek pour gagné ko ah waa supporters yi ay centaine de personnes jógee Nouakchott yëpp ñëw jàppale ñu

avec son staff jappalé nañu ci lépp mënu leen fay mun vraiment di leen ñaanal rek ñu gën leen jappalé ndax ñu gën mun ñu jàppale ñun. di encourager aussi les cadettes qui n'ont pas de démérité elles se sont données à fond mais xam nga compétition mom des fois mom ak aléa yo xamné ne doo ko mun comprendre donc euh, mais heureusement qu'elles ont eu à se battre ba jël médaille de bronze bi. Et la prochaine fois xam naa médaille d'or lay nek incha man lan la wax euh, ci équipe junior bi la nek dem bi. Euh, du mën a neex na parce que euh, yombul daal parce que dugg regroupement ferme dafa métti entraînement yi métti woon na mais bu méttee fii rek ba ñu yeggee fii dafa yomb si ñun parce que ñu bëri yaakaaroon na ñun buñ ñu demee duñ mën a dóor Guinée ndax moom lañ mooy suñu adversaire moom la amoon fi final bi te yàlla def na ñu dóor ko ñun loolu moo nekkoon ci objectif indi fi coupe bi indi nañ fi coupe bi indi nañ fi médaille d'or bi euh, mais cadets yi maa ngi leen encouragé parce que ñoom dañ leen dóor demi final daal mais ñun ñëpp daal def na lu ñu mën daal fee daal ni ñu fa demee woon neex na ñu ñu encadré woon euh, taxawu nañ ñu encadre nañ ba ba ñu yegg si tey fii daal final bi def na luñ mën ba dóor nañ Guinée euh, dem nañ yàlla may nañ ndam ñu ñëwaat ci jàmm kadet bi tamit jën nañ troisième place ñu ne xëy na tamit ñoom loolu moo gën si ñoom ñun yàlla euh, tamit xëy na li mu jox ñi lii moo gën si ñun ñu fas yéene ñaan yàlla yàlla jox ñi leneen lu ëpp lii daal maa ngi dirigeants yi coach yi ñëpp ak ñi nga xam ne ñoo ñëwoon di ci jàpp et tout euh, ak ñi nga xamante ne ñoo nekk fële mooy suñu mag yi ñu nekk ci A bi tamit seeni vidéo seen encouragement yëpp yegg si na euh, ñu ngi leen remercier daal ñoom ñëpp daal amuñu seen fay daal merci